Assalamu alaikum alaikum ye Assalamu alaikum alaikum ye Assalamu جزا الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم انا خير بما هو اهله بوكو جام دي واخه سن بروم دافنا ملائكه منو لينا بيند تيا با دي خامو لين كو واي بيند لين كو نيم كو واخه رك تي اي تيرين ماي كي اي كيتم السلام عليكم ورحمه الله jazallahu sayyidina wa nabiyana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana xayran bi ma huwa ahluhu bu ko jaam bi waxee suñu borom def naan malaayika yi mënu leen a bind tuyaaba di xamu leen ko waaye bind leen ko ni mu ko waxee rek ci ay téeréen ay ay kayitam asalaamaaleykum wa rahmatullahi